رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم أما بعد أيها الإخوة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والتزام تعاليم الكتاب والسنه fa bihima nanaalu saadata daarayni addunya wal axira allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila أيها الإخوة نهنئكم على عيد الفطر المبارك تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعواتنا وأذكارنا وتلاواتنا لكتابه العزيز mbokk yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi julli ci ngeen ji mbindéef di sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal waa këram yu baax yi ak saxaabaam yu tedd ak képp koo xam ne mi ngi góorgóorlu ci sunnaam yàlla na nu ci yàlla boole mbokk yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk fu nu mën a nekk ñu taqoo ragal yàlla fu nu mën a nekk ñu tënku ci njàngale alquran ak sunna ndax ci ñoom ñaar rekk la ñuy amee texe àddina ak àllaaxira yàlla na nu ko yàlla yombalal euh, kon ginnaaw loolu yéen mbokk yi ñu ngi leen di ndokkeel ci bésu korite bi ñu ngi tàllal sunu loxo sunu boroom di wax yàlla nu yàlla nangul nangul leen sunu koor ak sunuy naafila guddi sunuy ñaan sunuy zikr sunuy wird sunu jàng bi ñuy jàng téere yàlla bu tedd bi yooyu yëpp yàlla nu ko yàlla nangul ayuhal ixwa fal yawma iidul fitri al mubaarak kama qulna anifan tatazakkaruna ma'i laqad bada'na siyaama ramadan Eh, fi sabti almuwaafiq isnayni min shahri abril li anna alhilaala zahara masaa aljumua fi waahid abril fi ciddati amaakin fi senegal fa idaa tatabbanaa daalik yakuunu assabt salaasiina abril يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان من شهر رمضان فقمنا بالواجب بتفقد الهلال فثبت أنه ظهر في عدة أماكن في الدولة السنغالية mbokki tey la bésu korite ci lu wér ci sariya bu ngeen fàttalikoo samdi lañu tàmbali woon weeru koor muy ñaari fan ci avril li ko waral mooy boo delloo ci ginnaaw ajjuma bi ci ngoon la weer wi feeñ ci bërëb yu bari ci biir Sénégal moo tax ñu tàmbali samedi teg ko it ci charia loolu boo ko toppee samedi démb mooy nekk vingt-neuf ñu defaat li ñu charia sant mooy ñu farlu ci gëstu weer wi mu sax ne weer wi feeñ na ci biir réewum Sénégal ci diiwaanu Kawlax fu ñuy wax Tayba Biteyeen waa xam naa dëkk boobu dëkku ñi sant Bitey la ñu bari gis nañ ko fa Bambey ak diiwaanam ñu bari gis nañ ko fa boo génnee Sénégal Mali gii ñu bari gis nañ ko fa ci dëkk yu bëri kon nag li ñu yonent bi jàngaloon sallallahu alayhi wa mooy bu ngeen demee ba juróom-ñeent gëstu leen bu ngeen gisee wori leen bu ngeen gisul fenn mottali leen kon alhamdulilah gis nañu moo tax tey tey mooy bésu korite ci senegaal ndax waa Sénégal gis nañ ko démb muy mbir mu am solo nag moo xam ne day dindi tuuma waaw ndax ñii des ci li yàlla jàngal ci li yonent bi jàngale woon démb ni mu jàngalee lislaam bi ñi ci moy dañ leen di tuumaal ne waa arab saoudite ñooy seeni sëriñ dañoo gëmm rek di topp ñooñu lu ñu def ñu def kon lii wane na ne loolu amut xanaa kay dañoo dajeeg moom ci sunna yonent bi sunna yonent bi julli dee ba bokk ku ko appliqué rek nga dajeeg sa morom ku ko bàyyi ñu teqali ko arab saoudite la muy doxal ci réewam mooy xaar ba mu feeñ ci biir réewam moo tax ñoom gëstu nañ ko ci biir arab saoudite yëpp ci région yi amuñu fenn fu ñu fuñ ko gis ñu ne kon kon ñoom dañuy motal fanweer moo tax tey mooy la ñu fanweer ñu julli suba ñun waa Sénégal gëmmuñu rek ne ayca nañ def noonu déedéet dañoo ne ñu nit dañuy gëstu démb mooy sunu 29 yàlla def ñu gis mi ngoog ñu nit ñu def li ñu sariya sant lii lu am solo la day dindi tuuma ñu xam ne imaamu jullit yi mooy alquran ak sunna buñ ci dajee rek ñu bennoo saa yuñ ci dajewul ci la ñuy dund li nga xam ne ñun ñëpp metti lañu mooy teqalikoo boo xam ne kenn xamul ni mu toll kon bi ñu xoolee ñu gis ne weer wi feeñ na kon yëf yaa ngi noonu ayyuhal ixwa baada zalik ayyuhal ixwa fa min al musifi jiddan wa min al aari jiddan anna hunaka man yaatabiru nafsahu min al muslimin wa min al ulama wa yantami ila usratin diniya maarufa fi dawla wa maa zalika wa maa zalika aalana bila xajal aalana taana al imaam al buxaari wa kitaabahu al saxiix wal imaam al muslim wa kitaabahu al saxiix wa gayrihim min min allazina hum allazina xarraru ummahaati uh, sunan uh, kitaabul Buxaari allazi jamaa fiihi haazal imaam as-sunna as-saxiixa al-mutahhara naam mbokk yi ginnaaw bi ñu xamlee ni tey la julli wante dafa am lu tiis ci xol lu ruslu lool ci réewum senegaal am na benn waay jàppee na boppam jullit la jàppee na boppam ci boroom xam-xam yi la bokk mi ngi bokk ci famille bu ñu xam ci lislaam mi ngoog ak loolu yëpp rusul yëkkati kàddoom ci média yi di ŋàññi imaamul Buxaari di ŋàññi téeréem ak imaamu téeréem boobu moo dajale sunna yonent bi bu ñu segg mu wér kën nga xam ne loolu imaamul Buxaari li mu def day dooleel li yàlla ne man maa wàcce alquran ak sunna te maa koy garde yàlla ci ci kàttanam ak ci dogalam outil yooyu muy garde diineem bi mu mu mu bokk na ci outil yooyu al imaamul Buxaari imaamul Buxaari joxoñul boppam joxoñul fameem dafa taxaw nekk jaamu sunna yonent bi segga ko seggaat ko ba mu set wicc boroom xam-xam yi géeju ci sunna yonent bi nangul ko loolu mu samp téeréem bi nga xam ne lu wér lekk lu ñu segg lañ ci tegu moo ci nekk ak ñoom muslim ak ñeneen ñi ñu dencal sunna yoonam nga xam ne képp kuy pratiquer l'islam ci loolu ngay dellu waa ji bokk ci famille bu ñu xam si diine waroon a bokk ci ñiy défendre l'islam moo xëy ne bu Buxaari li ci biiram lépp ay fen la wallahi waa këram àndu ñëw moom ci loolu seen famille tey rekk ci suba maa ngi déglu kenn ci famille ku am xam-xam ku siiw muy waxtaane diine suba teel saa bu waxee lu am solo rek mu référé woo ci imaamul Buxaari bu waxee lu am solo rek mu ne lii hadis bii hadis bu wér la imaamul Buxaari moo ko nettali kon kii àndul ak waa ji ne imaam Buxaari li ci nekk yëpp ay fen mi ngoog ayyuhal ixwa fa sunna mislul quraan fi kawniha waxyan min allahi min xaysu lmaana yaqulu taala fi kitaabihi alaziz wa ma yantiqu an ilhawa in huwa illa waxyun yuuxa sunna nag bu sell bu wér dafa mel ni alquran ndax moo koy leeral ndax yàlla kat nee na ci alquran yonent bii salaa sallam du wax ci bànneexu bakkanam lu mu leen wax rek ci man la jóge muy quran muy hadis lu mu leen wax rekk ci man la jóge mi ngoog waaw wa sunna ayyuha al-ikhwa hujjatun wa masdarun tashri'i islami yaqulu taala wa ma aataakum rasul fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu sunna dellukaay la e, sukkandikuwaay la lay la mi ngoo ba loo jëf ci diina ñu ne foo ko teg nga dellu ci sunna waaw loolu yàlla moo ko wax yàlla moo ne lépp lu leen yonent bi indi leen indil jël leen moo xam alquran la moo xam sunna la lépp lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi moo xam alquran la moo xam sunna la ñoom ñaar benn lañu kenn mënu leen loolu moo tax sunna yonent bi moo ñuy leeralal alquran ndax bu dul woon sunna ni ñuy jullee tisbaar yéene kàbbar jàng faatiya teg ci saar jàkk jàpp óom sàbbaal siggi sàbbaal sujóot sàbbaal toogaat sàbbaal sujóot sàbbaal toogaat eh, toogu noppalu jóg détail yooyu doo ko gis ci alquran sunna moo koy wane moo tax yàlla sala subhanahu wa taala ne yonent bi maa wàccee ci yow alquran ngir nga leeralal leen li wàcc ci ñoom loolu mooy xadiis yonent bi moom mooy leeral téere bi lépp lu yàlla wàccee ne def leen lii yonent bi dafa ñu koy jottali ba pare salaa wane ñu naka lañ koy defee lépp lu yàlla wàccee ci alquran mu ne wax leen lii yonent bi dafa ñu koy jottali wax ñu naka lañ koy waxee lépp lu wàcc yàlla yàlla ne fas leen lii yonent bi jottali ñu ko salaa wax ñu nuñ koy fasee kon sunnaam moo leeral alquran kon ñoom ñaar kenn mënu kon boo jamee sunna a ah, yaa ngi jamaale alquran dugg nga nag ci musiba bu loolu moo tax ayyuha al ixwa fa kullu man taana fi alxadis annabawi aw kullu man taana alxadis annabawi alsaxix faqad taana fi rasulillah wa fi saxaaba wa gayrihim min alruwaat alsiqaat misl al imam al buxaari wa imam muslim wa gayrihim mbokk yi kon képp ku jam xadiisu yonent bi mbaa nga ayibal ko comme ni waa ji ayibalee li nekk ci saxiixul buxaari mu ne lépp fen la subhaanallah ku jam xadiis yi rek na nga xam ne yaa ngi jam yonent bi ndax moo ko yaa ngi ayibal yonent bi boo nee xadiis yëpp du dëgg mooy joxoñ nga yonent bi ne ko li nga wax du dëgg subhanallah maa ngi baalu yàlla sama làmmiñ bi koy nettali waaw mi ngoo ayibal nga saxaaba yi nga xam ne bu ñu jotee tey diine saxaaba yi ñoo ko jëlee ci yonent bi salaa sallam muy ay hadis ak ay quran ñu jottali ñu ko kon ñoom it jàm nga leen nee nga leen ñoom it dañuy fen ndax Buxaari hadis bu fa ne day ne hadis bi diw moo ma ko wax diw boobu nekk ku ñu xam ci kaan fóoreey xadiis yi diw bi diw moo ko wax noonu la koy jàppee ba mu àgg ci yonent bi sallallahu kon boo nekk ci ay wax fen la wax nga yonent bi lu garaaw loolu ak mbooleem nettalikat yi ñi bokk ci saxaaba yi taabiuuna yi atbaa taabiina yi ba ci téere yi nga xam ne ñoom lañu saxal foofu la ñu saxal sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag ku def loolu ay bal nga alquran it faqad taana fi alquran alkarim li anna xafazata sunna wa ruwaataha hum xafazatu alquran wa naqalatuhu qaala sallallahu alayhi wasallam ala inni utiitu alkitaaba wa mislahu maa alaa yushaku rajulun shab'an ala arikatihi yaqulu alaykum bi hadha alquran fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu ala wa inna ma harrama rasulullahi sala mithlu ma harrama allah akhrajahu at-tirmidhi wa ibnu majah wa sahahahu al-albani mbokk yi euh, ku jam ñii jam nga alquran it ndax yépp ci benn kii la génn waaw jam nga it ñi mokkal alquran ak sunna yépp jottali ko waaw ñooñu ni ñu mokkalee hadis noonu lañu ñu mokkalee alquran di ko jottalante ah xool leen yonente mi mi ngi wax lu yéeme loo xam ne day dal ci waa ji yonente baa ngi wax ci xadis bu wér mu ne man mii yonente bi jox nañ ma alquran ak lu mel ni moom ànd ak moom mooy sunna ak xadis yi e, wante dina am melokaan bi day wane waa ji kilifa la ku am reer la am na alal mi ngoog yonent bi nee na wante dina am waajoo xam ne dina reer ba suur kon am na dépense mu ja mu wéeru ci toogaay yu nooy njoowaan ah mi ngi noonu ba pare nag muy naan hadis teg leen ko fële doylu leen alquran rek lu mu araamal araamal leen lu mu daganal daganal leen ngeen yem fa kepp nag yonent bi ba jeexalagul jeexalagul wax de mu ne wante nag maa ngi xamle man mii di yonent bi lépp lu ma daganal dégg ak lépp lu ma araamal dafa mel ni li li dafa mel ni li dagan li araam li nekk ci alquran benn la alquran bu araamalee daganal manit ma araamal daganal ci sama sunna benn la du ñu teqalikoo kon yonent bi tontu na démb képp ku ñëw ci jamono yor taxawaay kii nag ci la bokk fi julli di sukkandiku di sunna yonent bi nee na lépp ay fen ay caaxaan subhanallah subhanallah mi kon yàlla na nu yàlla may dégg ak topp yàlla na nu yàlla may dégg ak topp yàlla bu seytaane man xeet mi ngoo fokk borom xam-xam yi taxawaat dëgër seytaane borom xam-xam lay som koo xam ne ay junni junni ñoo ko topp bu nërmeeloo ay junni junni daal di nërmeeluwaale yal na yàlla jàppale xeet bi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum allahu akbar akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ayuha alikhwa faman istahdafa sahihayn bittaani faqad da'ana jamia masadir alhadis wa ankara sunna bidalik fa huwa hadama diinahu hunaka man yaqulu fa huwa qad hadama diin walakin qad hadama diinahu wa awqaa nafsahu fi lhalak fa nuusihi bittawba qabla fawaati l awaan fa haza taan la yanqusu min qiimati sahihayn wa innama yakshifu an haqiqati haza rajul wa yudrijuhu fi silki alladina azharu adawatahum li sunna al mutahara mbokk ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne joxoñ nga ak sahihul buxaari ak muslim nga jam leen ayibal leen kon mel na ni ayibal nga mboolem référence yi jullit yi waaw mboolem hadis yi weddi nga leen waaw mi ngi noonu loolu nag am na ñuy naan yaa ngi màbb diine bi déedéet yaa ngi màbb sa diine yaa ngi daaneel sa bopp ci alkande kon kooku ñu ngi koy dénk mu tuub balaa waxtu tuub di weesu ñu ngi koy dénk mu tuub balaa waxtu tuub di deesu di weesu kon jam bii du wàññi dara ci téere boobu di sahihul Bukhari déedéet du wàññi dara ci sahih muslim du wàññi hadis yu wér yi nga xam ne ci la xeet wi di di di weeru wante lan lay def day feeñal waa ji jël taxawaay bii day feeñal moom mooy kan donte kon ne mi ngi askono ci ci famille bu baax day feeñal moom mooy kan waaw da koy dugal ci liste ñooñee nga xam ne feeñ nañu ci jamono feeñal seenug nooneel ci sunna yonent bi salaa sallam ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla wëlbati xolam ba mu delluwaat ci dëgg mu tuub balaa jamonoy tuub di weesu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamd rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahhab allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa'a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 Naam.